nuyub jullit di nuyoo bu sell di ñaan suñu boroom subhaanahu tabaraka wa suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak njéggalug yàlla mu mel ni dañuy dellusi ci suñu jataayal yóbbulug ndaw ñi mooy émission biñ ñu tuddee yóbbulug ndaw ñi suñu bàyyee xel nag suñu jataay bi weesu jàngoon nañ bind yu njëkk ci téere bi ñuy wax zaadu zawit taxallumi suñu jotaayab tey nag ñu ngi tàmbalee fa ñu yamoon ca jataay bi weesu te mooy sammaytuhu zaada zawit tahallumi li rabbihim waraaxatal muhallimi sëriñ bi teg ci nag yaa maxsara subbaani yéen waxambaane yi yow mi nga xam ne ndaw nga toll ci sa digg doole sëriñ in xiftum neem ragal nga xajal gàcce wala kersa neem ragal nga kersa faqaddimu na ngeen jiital taxalluman xamlu ala xamal ci jëf fa qaddimu na ngeen jiital alxaqaida pas-pas ya asunniya ya di ko dunal jidaali ci lu dul wal fira ak duur ya wal miryati ak werante wa baxdaha bokk na ci ginnaaw ba alfiqhu xam-xam fiq wa baxda zayni nekk na ci seen ginnaaw ñoom ñaar xilmu tasawufi xam-xam tasawuf almujili zayni may aji dindi yu ñaaw ya wa baxdaha bokk na ci ginnaaw ba wala nga ne wala budda mënta ñàkk baxdaha ginnaaw ba min alaati ci ay jumtuwaay lil baxs ñeel ak gëstu fil xadis xadis wala aayaati ak aaya alxuraan ya mu ne daal yéen noo xam mbaane yi bu ragal ngeen gàcce ci àdduna ak allaaxira boo leen di jëf na ngeen fexe ba jiital ak xam lu bu ko mat sëkk door a ci jëf na ngeen fexe ba na ngeen xam door jëf bu dee da ngeen a bëgg a jëf ak jaamu yàlla na ngeen ko xam door koo jëf mooy na ngeen jiital tamit pas-pasi sunna yi pas-pas sunna nag mooy pas-pas ba nga xamee ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ba fi jógee saxaabaam ya topp ca yooyee mooy pas-pasi sunna ya mu ne bu loolu weesoo it war ngeen a fexe ba xam-xam bi ñuy wax xam-xamu fiq xam-xamu tawhid ak fiq ak tasawuf ngeen fexe ba xam ca xam gu doy goo xam te dina dina leen dimbali ci seen àdduna ngeen mën a jëf la seen borom subhaanahu tabaaraka wa taala digle jëfin wam ko digle ngeen mën koo jëfee noonee ginnaaw ba nag ngeen fexe xam xam xam yi nga xam te ni ay jumtuwaay la ngir gëstu ci hadis ak alquran ndax xam-xam yooyee boo ca géejoo moo lay dimbali nga mën a gëstu ci alquran ak hadis sagam nag xam-xam dafa yaatu te dundu doomu aadama dafa gàtt gàtt goo xam te nii mën na cee jàng xam-xam ba jóge fi te xam-xam du jeex kon li mu njëkk a jiital nag moo fexee ba xam lu ñetti xam-xam yooyu mooy tawhid ak fiq ak tasawuf te mooy imaan ak islaam ak ihsan bu ci xam loo bu nekk yóbbul lu doy loo xam te nii mën na cee jaamu yàlla bu ci jógee nag mu mën a yaatal ci yeneen xam-xam yi moo tax mu nekk nax wi ndikki nax naxwu wa tasrif ak xam-xamu tasrif wal bayaani ak bayaan wal luqatil xarabi ak làng xarab wal maxaani ak maxaani mu ne xam-xam yooyu nag bam ca jiital mooy naxu xam xam teg ca tasrif teg ca bayaan def ci làng xarab mooy luqatul xarab wal maxaani teg ca kon yooyu ay jumtuwaay la yoo xam ni na dimbali nit ki mu mën a gëstu ci bu baax ci alquran gëstu bu baax ci hadis ak sew li nga xamee ne moo lay jàngal ni ngay nosee baat yi baat bu nekk baat ba ci war a tegoog ak mujjantale na muy demee wala loqatul xaraab mooy nga jàng làng xaraab nga fexe ba xam baat yi li muy tekk ci xaraab yooyu tamit di lay dimbali comme mu ne na fexe ba géeju ci xam-xam yooyee mën a dimbaliku ci sa wàllu diine mën cee gëstu bu baax mu ne isib tadaa nem tàmbali na al muridu murid ba bi tawxiid ci tawxiid wal fiqi ak fiq wa tasawuf ak tasawuf al mujid bay aji mun sellal muntahijan mbir mu muy aji soobu masaba ahli sunna ci yoonu woy sunna maxal jamaate àndal mbooloo ma najaa kon mu mucc min fitnatin ci fitna mooy daal muyit bi heure bu jiitalee xam-xamu tawxid teg ci fiq teg ci tasawuf daal di sóobu nag ci yoonu ahlu sunna te yoonu ahlu sunna moom mooy imaan ak islaam ak ihsaan nee na bu ca sóobee kan dina am tawféex ci àdduna ak alaaxira te dina mucc ci bépp fitnaay àddina ak fitnaay alaaxira kon nag murit bi rawatina rawatina di ab taalibe dafa war a jiital ñetti xam-xam yooyee ba pare doole sóobu nag ci yoonu jub ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir jëfe li ko suñu borom subhaana tabaaraka wa taala dénk loolu nag eur bu ko defee yoon woowu yoon woowu mu jël dina ci am ak texe àdduna am ci ak texe àllaaxira te dina mucc ci fitnaay àdduna mucc ci fitnaay àllaaxira kon loolu lu am solo la lu jar a bàyyi xel la ndax nit ki moom li war a njëkk ci moom mu fexe ba xam lu wàllu diineem xam na ñuy gëmee yàlla bu ca jógee xam nañuy jaamoo yàlla yëpp bu ca jógee mën a sellal lépp lu muy jaamu te yàlla rek tax te mooy tasawuf ñetti xam-xam yooyee gëstoo ba xam ca lu doy lu mu a yóbbuloo ci wàllu diineem mu door cee teg yeneen xam-xam kon nag dañuy wàccee suñu kàddu fii ñuy yemani fii ba benn jotaay bi di ñëw insha allah rabbi ci téeréb Serigne Touba bii ñuy wax Zaadul Tahalumi kon ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu digg ak topp suñu borom sellal xol ba ñu mën taataan kon ñu ngi sant mbokk yi teewlu jotaay yi yëpp leen ñaanal jàmm ak xéwal yu bari tabarkeel di wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey